musola ya dada ala ye ba ta dada la ni muso ya tinya yalla musuta defar su fekke jigen mo defaru yalla nak su jigen defare bañ na du ko yakati seytane be do ko men na musiya ko na warata ne seytane a rol bum am ci bir jigen yi dafa am dolo de mbe musolu dan na kila ko nge yamari maa ngi ñaan jigéen yi ndaxte yàlla suñu yoon bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ digal jigéen yi nga kuma kendoo fo musooli ye nañ leen waxal kaddu yu baax kaddu yu musoo beteyandi le yàlla dafa baaxal jigéen lool ni seytaani yaa jawyandi aka koleya su fekkee seytaane moo ko bonal nag kon dafay gën di bon rek ni musoo wuluuta su fekkee jigéen am na doom ay ni musoo wulu su amee doom bu jigéen malayka kulele kata faa konto ñaari malaayka ñooy jóg dem nuyu ji baayam ni musoo wuluutaay dinkee wulu su fekkee jigéen dafa juddu mu am benn doom bu góor malaayka cilin ne kata faa kondo benn malaayka dong moo jóg dem nuyu ji nii kon soobee yaata man ku am fayda ku am fulla nii ko nga londoo sodo soo man borom xam-xam laa dama am xam-xam nii ko nga darijoo sodo soo ne man borom daraja laa kanaa jikki wala nii ka musolu kumbondi bale bul yaakaar lii yëpp su fekkee yow dara du sa liggéey du jooyloo jigéen yi bul bul tiitaru ci yëpp amul ci yow njariñ kanaa jikki ko am bul yaakaar ne dina des dina des ci loxo fee yaa ruusal jigéen yi i kana jiti kabe tulee bulu ndimu ka musolu makoy wuli yakarne da sisalo su fekke do dimbala jigini ala tote moo min tan bita ñin na musobu ka kumboy ma ñaa jiyo bita mu ne amul tur yàlla bu gën a ci mom mooy jigen mu jooy te mu loo fompu ronga jam musoo amalu ndi ala ka kampa su fekkee shari'a daf ko téye ñu war ko dóor yar caw ko ci shari'a ngir teral jigéen moo tax shari'a ne fuñ koy cawee doomu taal lañ fay indi li tax ñu fay indi doomu taal boobu mooy ne su fekkee dafa am lu génn ci moom lu mel ni saw ñu bañ koo xam ngir gàcce musoolu si doo kuwo ceyee dimuli ye jigéen yi nañ ligal seen doom yi ila doo ku dulaabe bi ka fu ngoo sene wala ana tooli doom yi mooy ci bàyyi foofu lañ war a liggéeyee wondoo kuwo ŋaa fo moolu ye musu wo musu i bee kéemaale wulu la liggéey boobu wax ko de man a boo gis sa jëkkër ngay jur nii jurutee kéemaale si di wulu moolu jigitee kéele la wo fanaati soo xeebee sa jëkkër ah nit ñi dinañ xeeb kooku mu ëpp sa jëkkër ki nga xam ne kooku nga xeeb nii laa yeecee maa warandi yaake feŋol fendi si diwulu wala ɓe warala i ceeti yeminke feŋo beeti so fekke daga teral sa jëkkër jox ko orma jox ko teraanga da jur doom boo xam ne lépp loo xam ne yaa ko doon séntu si sa jëkkër sa doom dina am lu ko ëpp seytane naata o feeyandi mo e musu wo musu hani mansale bee ɓulu aɓe warli mollel ñaakoto nayina dunta muula ateɓe jutoriñeetalale dorom <laughs> mune seytane nan ñawu oye fa lool lool lool lool donte daf don se ak buur walla daf don se ak waliyu sundu sungen duge ci biir neg yen ñaar deful la ngay dara ni bitala saate konay ɗendi ka ñimmaɗum ni dunteela ceeyal muula dorom yaajey ɗendi ko ñemmalandi yeela janngu lewlu weelandi ye fen ɗum min de te condane la ndi isi kumala kam min ta condane la isi kuuge fana min ta condane la yaaje seytane ɗum ta adiyata e ñami so fekkee dañu a génn ci biir dëkk bi ah, ñu sanse jël lu rafet jël seen euh, euh, ceeni oor yi long-long yi takk ko waaye suñ jugee si biir nekk ñoom ak seen jëkkër ñu simmi yére yooyu léegi li ñuy dese mooy lu ñuy toggee ci biir waañ bi ci kaw loolu nag duñ wax lu neex duñ def lu baax duñ def duñ lu def lu lu rafet yeere bay ñimmaa dum i ko mi yaa fele iman soola mi ye hani bay ñimmaa jela nimmaa ñooyaa tamida muso ye feŋo feŋ ke a keeñaa la adiyata ye adiyata ye akuyata ye akuyata mu ne ki nga war a solal de pour mu gis la kooku solal loo ko nga koy solal keneen te jigéen gannaaw boo xam ne su ko ceetalee ba ceetal bi mu romb lépp loo xam ne sol na ko ci kanam jëkkëram xamal na jëkkër ji dina ci bég te dina ci kontaan ibo musolu ñanta ika kontaani hani be kampaani nii kii be kontaani di jigéen de dafa war a bég donte moom dafa am lu ko tàngal xol dafa am lu ko wala merloo waaye mu gis jëkkëram mu ngee bëgg muy kontaan moom na topp jëkkëram bi moom tam mu dal di kontaan rek ci kaw loolu musoo ñanta assisté o hannaa daraaɓe campagne naya keeje sewore ati sunu hannaa tara sewore ɓa sonno mogon sewo busala kaatu bin keede sewore moom su fekkee moom jëkkër jigéen ñi dafa kontaan waaye mu gis ne jëkkëram tey de xol ci aduna ak li nekk ci biiram lañ la ñuy jël teg ko ci loxam ñu feye ko ko nii fuduwa ma musoo nee nii bu fekkee naxut jigéen naa yee di ma wulu bu am na ci doom wonɗomo ɓe wuɓɓinay ma ɗi balal so fekke naf ko hane rawa ɗam sakkiji alal nako hane ɗamal dowm ɓe inde ay saaku saaku saaku ndax ko man suma xel ak suma xelaat ak suma leɓ laa yegin jokko sabaay demal naa ɗi darani ይገባል ሰሰረኝ ስለዋሄለ ቡል ደም neko suma serigne bu mag bi de mu ne naa dem te dinaa dem mooy sumay hari toon dem naa de mowo mo ilate banna ñawoña ñinin kaarote ni bonna mo dalala ya ñinin ka faabama ya dadale ba yeppo ho xam ne